waaw mooy mooy li ma wax sensibilisation benn pan la. ci li nga xam ne mooy mooy solution yu ñu war a indi. deuxième pan bi nga xam ne mooy euh, pan bu fondamental par rapport ak li nga xam ne mooy euh, mooy mooy mooy lutter contre cette migration ce mm-hmm. fléau dramatique. c'est d'abord apporter une solution économique une solution économique boo ko déggee mooy euh, dañ koy wax parce que ñun axe bi ñu indi pratiquement avec le président Diomaye fay portant ci li nga xam ne mooy indi ay solutions sur le plan économique mooy on a compris que l'immigration irrégulière ce n'est que le prolongement et la continuité de rural maanaam ñi nga xam ne ñoo doon jugee ci dëkk kaw yi di màngaan ci di ñëw ci taax yi bi ñëwee ci taax yi finalement fekk na fi liñ fi bëgg ñoom ak ñi ne ci taax yi ñooy génn réew mi ngir mën a dem ok ñu ne ban solution la ñuy indi par rapport ak sur le plan économique ñu ne ñun dañuy indi une politique économique endogène une politique économique endogène c'est différent d'une politique économique exogène endogène boo ko déggee mooy boo xam ne day reposer wu sur ce sur les facteurs internes loolu mooy lan mooy tey jii le Sénégal je prends des exemples économiques mm-hmm. benn bi mooy sur le plan de l'exportation et de d'importation euh, amoon nañu référence yu fi nekkoon lu ci mel ni de PSE bi mu ñëwee par rapport à ces solutions moom dafa xawoon a basé wu sur ce qu'on appelle l'importation d'ailleurs on a on avait une balance euh, commerciale déficitaire de 4000 milliards c'est-à-dire importation bi moo sutoon qu'est-ce qu'on importait on exportait des produits bruts et on importe des produits finis ñun ñu ne par rapport à cette solution li ñuy indi mooy on va amener une économie reposée sur la transformation des produits locaux ko su l'industrialisation de des ressources des ressources naturelles mooy tey mango bi nga xam ne wala wala wala wala produit yi nga xam ne dañ ko doon exporté bu ñu ko exporté du mën a am li nga xam ne tey ji mooy des revenus ñun mhm. produits yooyu désormais dañuy euh, installer ay cycle de transformation yoo xam ne mhm. dinañu mën a permettre mu doon des transformation de qualité mais aussi ñu créer waale de l'emploi par rapport a ces industries de transformation ça c'est deux deuxièmement mooy l'industrialisation de nos ressources mooy lépp loo xam ne am nañ ko moo xam ne moo xam li li nekk ci suuf la moo xam lu nekk ci ci biir suuf la ak li nekk ci kaw suuf mm-hmm. moo xam lu mu mën a doon ñun dañ koy bu buñ ko industrialiser ça va nous permettre ñu mën a samp huit pôles économiques quels sont ces huit pôles économique huit pôles économiques yi dañ koy samp dans les terroirs set mooy siin Saloum Waalo Kayoor Ferlo Casamance ak euh, euh, Sine Saloum Waalo Kayoor Ferlo Casamance Dakar mais aussi ñu samp loo xam ne tey jii dina mën a permettre xale yi nga xam ne ñoo nekk dans les terroirs ñu mën leen a camper dans les terroirs avec une politique d'industrialisation boo xam ne day accompagner wu sur la formation technique et professionnelle. nga xam ne jeunes yooyu ñun études yi ñu def yépp gis nañ ne ñi bëgg a liggéey te mënuñoo liggéey c'est parce que amuñu une capacitation professionnelle parce que on a hérité un enseignement. reposer sur la littérature et sur l'assimilation à la culture occidentale mais on n'a pas une euh, un enseignement professionnel qui repose sur li nga xam ni mooy la trucs de métier donc ñun on va centraliser mhm. ces huit pôles économiques ngir camper ces jeunes dans les terroirs maintenant ci suñu solution yi nga xam ne aussi moom le président Diomaye le gouvernement président Diomaye Faye indi à travers le projet ngi lutter contre la migration irrégulière def cee bokk secteur de euh, euh, le secteur de la pêche je m'explique pêche bi mooy noyau centrale bi nga xam ne. mën nañ cee jaaree tëj li nga xam ne mooy la migration irrégulière comment ñi dawal gaal yi duñu ay menuisier duñu ay mécanicien duñu ay tôlier. Mm-hmm. ay mool lañ. mool yooyu dañoo am ay gaal dañoo am benn ressource bu nekk ci biir géej. Mm-hmm. te ressource yooyu ñoom buñ ci jotul. finalement bateau bi nga xam ne mooy gaal gi nga xam ne moom la ñu amoon ngir nappi jën finalement taxe lay doon diggante Sénégal ak Espagne ñu ne on va faire ce qu'on appelle soit ñu renégocier li nga xam ne moom mooy les contrat de pêche ba suñu géej dellu soit suñu loxo loolu benn la ci secteur de pêche deuxième solution bi nga xam ne moom la projet bi indi à travers le président euh, Diomaye fay mooy ci secteur de la pêche bi on va procéder à ce qu'on appelle l'immatriculation des pirogues pourquoi dinañu mën a permettre ñu maîtriser suñu flotte ba gaal goo xam ne dafa tëmb bu ñu toogee 24 heures 48 heures gisuñu ko danañu interpeller borom xam nga lu tax. Mm-hmm. dina la mën a permettre nga renforcer sa surveillance su les côtes maanaam day tax nga dem ba maanaam ñi nga xam ne ñooy gaal yi war a génn gaal gu génn di nga xam ne di way borom. Mm-hmm. diw moomu di borom nag après tu vas euh, déclencher ce qu'on appelle des sanctions. pénal yoo xam ne moom day xam ne gaalam kat waratul dem ndax bu fu gaalam génnee dem dina indi ci moom maanaam ay sanctions yoo xam ne finalement da koy topp. donc loolu ay solution yi nga xam ne. Mhm. Euh, voilà tegagum nañ ko ci ci ci ci li nga xam ne mooy ci loolu.